jàmm kii nag di Queen Biz ma ngay attaqué kii nii di Youssou Ndour ginaaw bi nga xamante ne nii kii di Youssou Ndour le roi yu mbalax dem na fële nga xamante ne nii moo di Bercy organiser li nga xamante ne nii moo di Bercy comme nu ngi koy defee chaque année kii nag di Queen Biz rafetulul loolu parce que nee na nan la réew mi mën a nekkee ci ay jafe-jafe gars yi di manifester wu di wane seen naqar kii nii di Youssou Ndour mënul di xool loolu dem fële ca Bercy di organiser ay Bercy comme nu mu koy faral di defee chaque année moom mii nag di Queen Biz nee na kii nii di Youssou Ndour du fay li nga xamante ne nii moo di fiscal du fay maanaam li nga xamante ne nii moo di impôt moo tax lijjantiwul li nga xamante ne nii moo di réew mi ba pare xaalisu réew mi moom lay jëfandikoo moom mii nag di Queen Biz mi ngi attaqué kii nii di Youssou Ndour bu baax a baax a baax parce que nee na Youssou Ndour réew mi nekk si ay jafe-jafe moom mu nekk fi moom mu dem fi nga xamante ne nii moo di Bercy di organiser ay. Bercy di organiser ay lii te réew mi nekk ci jafe-jafe réewam nekk ci jafe-jafe gars yi di manifester wu au lieu mu ñëw wax ci lii nii du ci wax mais kii nag di Youssou Ndour nee na moom Fara kii nii di faraa jënd na di euh, défendre kii nii di yuusu Ndour parce que nee na. Youssou Ndour moom mi même bu dee loolu sax Youssou Ndour dañ ko war a jox cër parce que moom mi muy Baaba Maal muy Omar Pène muy keneen ak keneen ñoom ñëpp dañu leen a war a jox cër parce que lu ñu def ci réew mi même bu fekkee sax dañuy def loo nga xamante ne nii jaarul yoon ñoom dañ leen a war a jox cër kenn warul leen a tuutal moom mii nag di Fata ma ngay. defandre kii nii di Youssou Ndour bu ñu jugee dem ci Kumba Gawla Kumba Gawla mii nag lu ko dal metti na trop Kumba Gawla daal moom mii compte Facebook am dañ ko triqué maanaam ay defkatu ñaawteef ñoo triqué li nga xamante ne nii moo di Facebook am di fa def lu ñaaw maanaam di jël ay photo di publier. yu bon di def ay yu bon di envoyé jël xaalis bu ko envoyé nit ñi si def lu te xool nañ ni kii nii di Coumba Gawlo woon na li nga xamante ne nii moo di chaîne musicale bi ginnaaw bi nga xamante ne nii retiré wu na si chaîne musicale bi da yëngu ci li nga xamante ne nii moo di social di dimbali nit ñi di di dimbali nit ñi ku feebar mu dimbali la ku ñàkk mu dimbali la mais nag ay defkatu ñaawteef moo dem ñoo dem triquer compte Facebook am di fa def ñaaw ba kii nii di Coumba Gawlo yaakaar nañ ni sax moom moo koy def alors que du moom ay defkatu ñaawteef defkatu ñaawteef yéene ko lu bon rek ñoo dem triquer li nga xamante ne nii moo di compte Facebook am. di fa def lu ñaaw di fa publier lu ñaaw mais ku xam Kumba Gawlo xamee ko si lu baax xamee ko si lu baax a baax a baax parce que kii nii di Kumba la du def yëf yu bon yooyu dañoo xamante ne nii fee nañoo xam ni Facebook am dañ ko triqué ay def kotu ñaaw teef ñoo ko def lii nag nga xamante ne nii moo di concert casserole ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Ousmane Sonko ñu koy wax sonk mu sell mi organiser na ko pour mercredi gars yi jënn ñii yor seeni i oto ñuy klaxonné ñi nga xamante ne ñii yoruñ seeni oto ñu jël ay bool wala ay cin di ko fëgg pour wane li nga xamante ne nii moo ti moo di seen nakar loolu nag la Ousmane Sonko def ginnaaw bi nga xamante ne ni kii di président Macky Sall tere na leen li nga xamante ne ni moo di manifestation son nee na mercredi concert ba nag vingt heures lay commencé ba vingt heures dix dix minutes mais seetlu nañ ni démb ikad gars yi ñu ngi doon yëngal te commencé wuñ daanaka ñoom li ñu ko def mat na li nga xamante ne nii moo di une heure de temps sénégalais moom xam ne ni lu mu jël. ëppal sa te xam ngeen ni du yomb bu subaa incha allah bu ñu jugee foofu dem ci Sadio Mané Sadio Mané nag signé na fële ca Bayern Munich ginnaaw bi nga xamante ne nii jugee na ca Liverpool ginnaaw bi nga xamante ne nii sénégalais yu bëri bëgg nañ mu jugee fële ca Liverpool Sadio maane nag jugee na jugee na fële ca Liverpool instant yi ma nga ca Bayern Munich signé na tey nag jii tey jii nag la def li nga xamante ne nii moo di visite médicale ak waa Bayern Munich kii nag di Sadio Mané jamono ji nañu jàpp ni joueur Bayern Munich parce que tey la signé tey la dem def visite médicale am instant yi daal moom ca championnat Allemagne fa lay évoluer kii nii di Sadio Mané Sadio Mané bi nga xamante ne nii rafet na xool ginnaaw bi nga xamante ne nii def na vacance am vacance am yu neex fii nii ci Sénégal.